def naa sama déclaration ne nag ñun te ba tey loolu rek la laa gars di laaj def naa euh, même weekend bi dina am ay marche Oussouye Ziguinchor feneen ak feneen dama leen ne ñun réclamuñu une faveur man seen doom Ousmane Sonko bis bu ma defee njombe je ne demanderai jamais ngeen défendre ma parce que ñun diine gi ñu gëm muy islam yonent bi dafa ne sa mbokk da koy jàppale bu tooñee ak bu ñu ko tooñee. ñu ne ko ah ñun de xam nañ bu ñu ko tooñee lu ñuy def dañuy taxaw xeex xeex xeexle ko waaye bu dee moo moo tooñ ak lu ñuy def mu ne da ngeen di jàpp loo ne ko sëñ bi yaa tooñ demal ñaan njëggal mm-hmm. li ma bañ mooy jaay doole bi xew ci réew mi instrumentaliser état instrumentaliser justice parce que dem nañ ba Sénégalais yi gëm ni Macky Sall saa yu buggee tëj kenn mun na koo tëj même su amul dëgg mun na koo tëj loolu nag ñun duñ ko nangu ci Pastef ni ma ko waxee Casamance laa ko waxee feneen ak feneen j'ai lancé un appel à l'Afrique d'abord xam naa ni déglu nga sama wax. Mhm. j'ai lancé un appel à l'Afrique parce que dama ne Afrique dafa am lu fi war a jeex saa yu ñu demee ba benn discours dellu si ci ñu dellu ci suñuy valeur gëm suñu bopp delloo suñu réew ci suñuy loxo suñu économie ñu jëlaat ko am suñu sañteef di décider suñu bopp ñu commencé complot yi pour faagaagal kooku. def nañ ko ci Lumumba def nañ ko ci Thomas Sankara def nañ ko ci Mamadou def nañ ko ci keneen ak keneen loolu dootuñu ko nangu Afrique bis bu ñu amee lu ñu mun a teg ci ndodd Ousmane Sonko loo xam ne leer na lii faute la man maay njëkk a rendre sama bopp y a problème mais tappale yu ñuy def defoon ko forcé ko ñenn ñi tëj leen kaso yàq leen yàqal leen loolu ñun duñ ko nangu. et on batra ci ni ñu mën a xeexee parce que tamit. Mhm. réew dafa am charte yu ko war a doxal. mu des nag mu des nag léegi. Euh, gis nga Casamance li ma la waxee ni